di rafetlu si première convocation bi parce que kontaan naa si trop euh, la fait ñu jékki saa yore woo la noonu am mbégte bu garaaw la quoi. non surprise la woon surprise parce que xaaruma ko woon le fait que même malgré que population bi tamit ñu ngi doon réclamer Cheikh Tidiane Sy bi mais dafa ma dul ànd ak ak humilité depuis chan bi ba léegi. moo tax euh, ce matin ba ñu ma wooyee na ma pour ma ñëw def euh, benn remplacement si Jacob am na am naa kontaan dama bu baax a baax a baax du ma def lu dul tamit di di continuer si le même lancé rek après lu ñu yàlla jox rek ñu jël ko. waaw jàngaat naa di euh, am na niveau parce que mère euh, Marguerite ay joueurs professionnels lañu fekk ay joueurs yu xarañ yoo xam ne monde bi yëpp kii nañ leen mais du ma def lu dul tamit di jàngaat tamit si ñoom rek.